niko taxono jog moy négocier ak Sénégal ben programme bu bess ci waxam néna programme bu bess bobu danaka d'accord nañ ci FMI ak gouvernement du Sénégal ñom nak gërëm nañ président gërëm premier ministre parce que ñom ñëpp recevoir nañ ko recevoir nañ mission bi at barki mission bi nag liñ ci mën a tënk wax na ko dañu am programme bu bees boo xam ne dina def ñetti at juin 2023 bii lay tàmbali jeex juin 2026 programme bu bees boobu nag nga xam ne conclure nañ ko FMI ak gouvernement du Sénégal ci xayma xaalis bu ñu xoolee programme bi am na xaalis bu tolloog mille cent cinquante milliards de francs CFA ci biir ñetti at loolu nag day wone rek que économie Sénégal mu ngi ci tànk yu wax na nag que programme bi quatre axes la axe bu njëkk bi mooy affaire finance publique finance publique moom chaque année rek danga koy améliorer am na ay tegtal yuñ ci joxe pour xool ñu ñuy gën a améliorer gestion finance publique yi teg na ci aussi gouvernance financière ak transparence boo gisee ñoom ñu wax loolu dañu rafetlu yenn instrument yiñ fi président de la république teg yu mel ni OFNAC yu mel ni ay déclaration de patrimoine programme bi da koy dooleel kese da koy renforcer wax nañ ko nee nañ aussi économie Sénégal mu gën a résiliente xaw ma nuñ koy traduire ci wolof mais mun nañ jàpp rek ne bi fi Covid ñëwee président teg programme bu ñu tuddee programme de résilience économique et sociale de mille milliards loolu rek la ñuy wax ne mën nañ tënk ñetteelu axe bi renforcer économie bi muy déco, choc yi nga ci bi bu mujj bi environnement parce que gis Sénégal xarañ trop ci def di di ci préservation de l'environnement lu am solo boobu nag mooy bi mucc ñoom tamit wax nañ ne effectivement biñ gisee choc yi nga xam ne Sénégal amoon na ko ñu jël Covid bi jël guerre en Ukraine jël njëg yi yokk inflation bi yokk tax na ba programme yi gouvernement bi def pour que population yi bañ ko yëg yokk na endettement bi moom mu joxe chiffre endettement Sénégal 76 pour cent du PIB ma leeral ne endettement boobu mu joxe ñaari pàcc la dafa am endettement administration centrale ak endettement structure parapublique généralement réew yi bu ñu leen di comparer seen endettement administration centrale la ñuy comparer boobu 68 virgule 2 pour cent maanaam tey boo ñu doon comparer yeneen juróom-ñaari réew UEMOA nga gis seen taux d'endettement boo demee ci soixante seize yi juum nga da ngay dem ci soixante huit virgule deux bi boobu c'est inférieur à soixante dix pour cent noonu la ñuy comparer mais ñun ah. Sénégal suñu xarante ak ANSD ak statistique yi ñu am dañ ci boole structure parapublique yi ba nga xam ne ñoom tamit seen endettement dañ ko ciy dugal Te andenman bobu, boko kole, tolou nan ki 7,8%, lol mwen 76%, lolou la leran. Ma leran timin ne, nyon wak nen nye, Senegal, def nou subvansyon bou bari, pour djappe le yi. 1000 milliards. ki juste walou enerji. Manam elektrisite bi, at carburant bi, ak gaz butane bi nee nañ nag loolu ñu ngi sàkku ñu koy wàññi ndànk-ndànk ba nga xam ne li nga xam ne dañ koy wàññi dina mën a dem ci yeneen lu mel ni bourse familiale yi ak yeneen programme yi nga xam ne dëkk kaw yeeg yëpp soxla nañ ko comme PUDC at yooyu léegi nag loolu moo tax ma leeral ne subvention yooyu ñu wàññi terewul que ba léegi ñu ngi continuer di supporter subvention bu am solo boo xam ne mu ngi ci budget bi pour que population yi ñu gën leen ñu continuer di leen jàppale comme ni ko président de la république santaane loolu nag ma wax ci ne tey tey malgré que yokkoon nañ njëgu gasoil bi ba léegi ku jënd gasoil litre gasoil 755 gouvernement bi heure bo jëndé litre gasoil xamal ni gouvernement bi mu ngi supporter 65 francs CFA manam 8% ma léral aussi bouteille gazou 6 kg bi buñu xolé mu jar 2885 ci lolu mën nañ wax né gouvernement bi subventionné ko nako bu baax vingt huit pour cent la maanaam bouteille gazu six kilo bu nit jënd rek gouvernement bi supporté na ci mille cent vingt trois francs CFA mooy vingt huit pour cent ma leeral ni aussi ci wàllu électricité bu ñu xoolee xayma ménage yi nga xam ne dañu né di doole ñu ngi toll ci un million cent cinquante six mille ménages daanaka ñooñu presque li ñuy consommer cent cinquante kilowatt heure la amul benn yokkute boo xam ne yokkute yële passé concerne na ñeneen ñi lañ yokk te même yokk biñ def ci ñeneen ñi mun nañ jàpp ne kilowatt heure boo xam ne ni consommer na ko te bokkul te moom li muy consommer ëpp na cent cinquante kilowatt heure na jàpp ne gouvernement bi mu ngi jël en charge vingt sept francs CFA manam def na ci subvention 20% lolu la loolu laa ci ci wolof léegi nak ñu leen di gërëm di leen sant di xaar yenn question yi ngeen di poser pour mom ak man ñu mun ci tontu.